boo bëggee information yi wour abonné ci seen bit la fa Léral du fa mo joxe information yi wour ci assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki jullit ñi mbokki talibé yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare rek kam ah, ni ñu ko baxo defee rek lu melna né ah, tay la fukki fan ak juroom ben ci weeru koor ah nga xamné ndog yi nga xamné ne ñu ngi koy togg kër maam Cheikh ibrahim Fall di ko yóbbu kër Serigne Touba gi ah yobbu nañ ko bañ dellul ni waye dañu taxaw ak jëriñ ju mak ko xamné dafa bok ci yoon wi muy Serigne Barakan Sine Ah, mom nak dem mu def liggey bu reuy eh, jébbal ko way juróom bax wax sayyidna hasan ndaysan ah, mbolam dekk bi yep rek tew ak talibe yi ak xarit ak soppe yi sëñ Abdou Aziz mu melni dem ñoo demon ci keur Serigne Badakan sin lu reuy lañ fa fek la serigne Badakan daan def bu doon def fukk dem yok nako ñaar manam xoli talibe yep set nañ mbolam ko xamne tay tey na serigne Badakan alal pour mu defal ko ci ñaqu Cheikh gis nako ndax site bi di Lamp Fall Leeral Touba fi mu yegg dafa sori te ñukay baye xel dafa bari sa dafa baaxoo ab taalibe gis bu joxee addiye wala bu joxee dara rek gis fa ko sëriñ bi defal sa ñoom ñii liñ leen di jox dafa ñëw a seeni poos heure bu leen ko joxee rek dañ koy ci yoonu sëriñ Tuubaa weeg Cheikh Ibra Fall bi waaye démb waneeti na ko mbokkam yëpp ñëw nañ sëñ Abdou Sis ñu bàyyi laak sëñ Badakan Siin daa lu mu Baay Fall ñi ngi lay jaajëfal bu baax di doole jox sëriñ bi wàcc waayam sëñ Bada di la siyaare bu wér si tolluwaay bi di jiital siyaar bi sëñ Muntaxa sëñ Amdi Moodu Mbenda mhm. njabootu sëñ Tuubaa Cheikh Ibra di doole seen sëñ Cheikh Mor Fall mi nga xam ne mooy suñ buntu si yoon wi. mu mel ne démb ànd nañoo yow liggéey bi daanaka démb nag fukki fan juróom mu xaw a xat. biñ demee sëñ na Aliou muy ba Aliou Fall. jotle na kàddu yu matale yu am solo yu pëseefu mu mel ne loolu sëriñ bi lan la mën a dolliwaat si ginnaaw liggéey bu rëy bii nga xam ne jébal nga ko sa bunt si yoon wi. waaw sëñ Abdou Ciss ñu leen di ziar bu baax yéen waa Lamp Fall Leeral Touba ñu ngi leen di ziar bu di ñaan suñu borom dafa leen xéewal yaatu yaatu ba site bi fan bëgg fu fi bëgg ñu mu yàgg fa ñu yàlla na fa yàgg si jàmm si doole maam Cheikh Ibra Fall bi ngeen liggéeyal liñ si mën a dolli moom daanaka du bari ndax démb ku fa teew rek gis nga kàddu yi sëriñ bi ni mu ko soññee ak ni mu ko yaatale yaakaar naa ku fa jug te dégg am taataan sa xel di nga amaat beneen pas-pas boo xam ne nii euh, da nga yaakaar di doog yu ñëwaat rek nga def si saw ñax ndax dama leen ko waxee woon rek sëriñ bi suy woote woote wut pour boppam daa woote ngir ñu ànd liggéeyal sëriñ te ñun tout le monde si Cheikh Ibrahima Fall mooy waa kër Sërif Assane Fall di waa kër sëñ Aliou Fall Mbawar sëñ moo Fall Mbawar yaakaar naa ñoo bokk lépp kon soo leen ñëwee di ñu laaj ci loolu démb tamit seen taxawaay rafet na lool ñu ngi leen di si jaajëfal bu baax a baax di gën a soññaan mbokk taalibe rek xam ni yoon waa ngi noonu ñun ay landinoor landinoor la ñun te diw comme niñ ñu ko joxee noonu lañ àndewaat rek ñoom ñoom ñëpp ànd ak ñoom yóbbu si kin yaakaar ni suñ fa àggee liñ bëgg si addee ji dana ko si am muy waa ko Sëriñ moo tax ñu ànd ñoom dem ah, jébal ko suñu yaakaar te ñu ni ñooy àndaat ak ñoom yóbbul ko yaakaaram kon loolu teewuñu sa dara comme ni ko sëriñ bi waxee su fekkoon leneen ñu tax a jóg mën na noo ànd ak ñun kese wala ñu ko joxee ñu sàqal ko pexe waaye liggéeyu sëriñ bi yaakaar naa aussi sumb noo si sumb rek noonu nga si kon ñu fas yéene ñaanal taalibe yi suñu borom yokk leen bu baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla ni ko sëñ Massaar waxee léegi euh, suñu defoon daaw fukk yaakaar naa ren def na ñaar fukk te loolu lépp dooley taalibe yi la ndax taali euh, dooley jën moom ndox te taalibe taalibe taalibe yi mooy suñu doole kon ñu ngi leen di ñaanal ak yokkute gu sax dàkk ànd ak xéwal ñaan suñu borom defal ñu ñu fekk at yu bëree bëree bëree bëri euh, dimbali taalibe yi wërsëgaleen ba yéene yin yéene liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall ñëpp am ko te mu ànd ak xéwal yu yaatu yaatu ñu ngi leen di ñu ngi leen di dégg la Cheikh waaw mi ngi noonu. ne sëñ bi ku yokkul yaa wàññi. Mhm. te mel na ne macha allah yokk nga. mu mel ne démb biñ dikkee boole nga ñëw sëñ Lamp kan. sëñ Lamp it mu nekk taxawaay boo xam ne am na ko taxawaay bu am solo sa ginnaaw. ak mboolem ay rakkam ak say mag. Mhm. nga xam ne njabootu sëñ Modou kan siin gépp mhm. dañoo ànd nekk wenn say nga nekk si bopp bi. ngeen yëkkatandoo di tegandoo mu mel ne taxawaay boobu dafa jiitu si yéen ñi nga xam ne yéenay njaboot gi taalibe yi doog see topp loolu lan la sëriñ bi mën a dolliwaat loo xam ne lu ko gën a mën a joŋal gën koo dëgëral waaw loolu defaru mag ñaar rek la ndax suñu waajur yaakaar naa yar na fam ñu war a yare ba ba ba yóbbu daara jotee yóbbu nañu ah, boole ñu daanaka mosuñoo génn si ay loxoom lu bëree bëri ba keroog ñu wujjee borom ah rakk nag déggal ma lool nit ñu xaajalee maanaam sëriñ sëñ Sall sëñ Lam moomu sëñ Cheikh Ndiaye mooy wasilaam sëriñ Cheikh sëñ Fall Fall mu sëñ Ali Fall Mbawar sëñ Assane mi nga xam ne mooy caatu sëñ nag moom man la jox boppam lu jiitu nekk sëriñ bi ndax loolu moom yàgg na waaye nit ñu boolee noonu yaakaar naa am na nu ko nuñ koy waxee naan moom nit ñu ñu jaxasoo moom yàllaa ko def yàllaa ko def dañuy boole xewloo wala nga boole ñu tuur rek waaye mënuñoo tàqali ko loolu sa mag ko def moo moo ko samp moo ñu ko fi bàyyil te fas yéene dara yàqu si ndax euh, suñ jiitoo rek ñoom ñoo ñu gën a dooleel waaw ñoo ñu gën a dooleel bu baax a baax ndax su ñu fakastal yaakaar naa du man li man waaw su ñu fakastal li ñu man duñ ko man kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax dara Cheikh mu mel ne ni nga ko waxee bu fekkoon da ngaa jiitu ñu fakastal la nii moom lii nga man doo ko man mu mel ne tamit génération bii génération bi tey jii sëñ Bada day maara boo xam ne si maara actualité la di maara boo ànd ak jamono ànd ak temps niñ ko mën a waxee si jamono ji ni mu demee macha allah nga bëri sëti Cheikh Ibrahima Fall yoo xam ne si bokk ngeen génération te da ngeen a amlante si lu nëbbu ak si lu feeñ loolu lu sëñ bi mën a dolliwaat. dëgg la walaay maanaam ñun moom dañuy alali Cheikh Ibrahima ñun dañuy alali moo tax njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi bëgg ñu bëgg boo xam ne nii daanaka sama bundu kër yaakaar naa doo fa romb mukk te doo doo doo doo deret Cheikh Ibrahima toogu fa loolu du sunu ñàmbaar du sunu ku bëri dara wala na ndax du lu leen ni jox du lu leen di wax waaye danoo xam seen alal la ñuy fekk moo tax saa su ne ñun dañuy xamaan ni ñun alali Cheikh Ibrahima Fall ndax lu ñuy def te benn alali Cheikh Ibrahima Fall nekku fa rek loolu daa mel du du du safe. waaw suñ suñ tàmbali nag daal bi Serigne Fall nekk fa rek ñoon xam na ni danañ ko danañ ko mission boobu danañ ko accomplir incha allah. ndeysaan mu mel nee da ne ñu nekk bu fa àllu Cheikh Ibrahima nekkul du safe. kon loolu day mel ne démb la sëñ leeral. Mhm. mu mel ne sëñ Modou Kane siin di seen waajur yéen bu ngeen boolee. Mhm. nekk ba mat li ngeen doon. Mhm. doon mat jëmmam ja. waaye bu kenn manqué rek. am na lu manqué si jëmmam ji kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la doolee jox maanaam sa wàccuwaay di jégalu si kaddu yi am na solo lool kon ma sëñ ma seer mu mel ne sëñ Bada joxate na kaddu am solo waaw dugal ko dugal ko dugal waaw sumi mu mel ne moom it jëwri wii ma sa sa kees la sona sumi moom it liggéey dee ko taxoon a jóg ñëw boobu ba léegi delluwul sona su ku kees tudd benn dëkk ñaari gaar. waaw kees di. Mhm. kees maam Seeraay ma Fall. kees maam Seeraay ma Fall Cheikh Ibra bëri lu mu fa def. waaw bëri boo tuddee sëñ Bay Lo. yóbbaale nga ñu bëri. boo tuddee sëñ Ablaye Yaxin Diop. yóbbaale nga ñu bëri. kon soxna su mhm. liggéey bi loo si mën a couleur si ginnaaw kàddu sëriñ bi. liggéey bi ci ginnaaw kàddu sëriñ bi. di ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké mu yàgg fi te wér. ak xalifa Baye Fall yëpp. di ñaanal suñu wasila di Cheikh Badakan yal na ko suñu borom yàlla yàggal te wéral ko mu dund sans ordonnance ci barke Serap ndax kontaan rek lañ def ndax ñun am na lu Serap Fall ca Serap coow li coow li moom la bu du woon ak mooma sëñ Bamba réer nu ñibbi waaye Serap Fall moo woon sëñ Bamba ginnaaw yàlla ak bi ñun nag suñu bunt ci Serap Fall sëñ Badakan mii la ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér borom jaasi ji yal na ko sëñ borom yàlla yàggal lu nu yéene ci moom ren yal na yéene ren ëpp fuuf. ci barke Sidina mohammed yal na fi yàgg na fi wer man sama xol da fess del barke Seera Faal mënu wax limay wax ni damay tandale way mënu maa wax xol da fess barke man Seera Faal. maanaam tey bu la doon meuna a benen waccu way nga xamne dembu tuddu nañ ko sid bi nak mokay jalat personnellement. nga xamne liñ li ak mom la muy mourid mourid cham nekkon kenn ci kër gi ab liggéeyam manam foko ko rom nako mu doon bëggee sëñ Modou kan sin mhm. foko ma sa na dégg da nga dégg mu ne kan jallo mhm. daal di bàkk Modou kan loolu it loo si mam ñu dolle koo ñaanal waaw Fall waaw barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall liggéey ci yoon wi loo xamante mënu koo fay ma ne ko liggéey ci yoon wi mënu fay nu ñaanal yal na xippee firrausi. firdawsi te am nañ ci moom yaakaar lool nag ndax murid caam Baay Fall la gaynde la ci kër gi Fall kon murid caam yal na ko suñu borom yàlla xare ci ya gën a ci barke Seexul Xaddim di ñaanal Cheikh Bala li ma rek yal na fi yàgg yal na wér Cheikh Badakan yal na fi yàgg yal na wér ak sëriñ Lamp Kan ak mboolem julit yooyu kàddu la joxale sëñ maam góor gis nga liggéey bi ñu dem ba wàññeeku toolu kër sëñ Cheikh Ndigal jóge résidence tey la fukki fan ak juróom benn si weeru koor démb sëñ Bada da doon jébbal ab liggéeyam si fukki fan yeeg juróom tey jii si fukki fan yeeg juróom benn muy couviraat li nga xam ne moo doon liggéeyu dem bi loo si mën a jàngat si tolluwaay Baye Fall yi waa kër sëñ Cheikh Ndigal a ngi nii ñi ngi di bëgg a expliquer ju baa a ngi xadi ay ndogo mo ngi ci yoon wi ñew mu melni bay Fall yépp tamit dañuy ci wat diko téru le ndogo yoy ngir sargal ko. jërëjëf señu Abdou Ciss euh, comme ñu ko wax rek non la muy liggéey bu mom dibi ñu ko ba nëgë ni su nek rek ak ni muy comme ni nga ko waxé sëñ barak kan mi nga xamanteni yalla dogal démb doon jébal ay ndogom ko xam xamni bayam jàmbaar doon coono lool muy sëñ murukan taxaway ba nga xamanteni mom la taxaw mom la bayam taxawon taxaway boobu mom la and ak ay rakam dara maam foko bu ko bayam bayiwon ñet yobunu ko fukk lolou day wone ni yoon mom lolou rek la chaque fois à chaque fois rek ci kanam la jëm comme ni nga ko waxee tam gis nga ko ñi ngi nii di dugg ci paaleen waye ku ne xamna ni suñu jambar gi nga xamanteni ni mom moy mooy sabab yoon yëpp di sëriñ Amdi khadi Fall ku ne xamna ab liggéey mi ngi ci yoon wi di ñew kon lolou tam ku day ko day jambar jo xamanteni ni mom rek rek rek doyna ci présenté Cheikh Ibra ndax taxawayam ak ak ak deggom ak liggéey bi Cheikh Ibra nga xamni lepp lu am joxna ko joxna na ko Cheikh Ibra toog Cheikh Ibra khadi ku ko xam xamni jambar la kon da Cheikh Ibra 6 nañ xam ne daal liggéey bi daal mi ngi nii Baye Fall daal lii mooy liggéey bi. boo bëggee information yi wóor abonné ci seen biir Lamp Fall Léral du baax mooy joxe information yi wóor ci jamono.